damay remercier d'abord au passage son excellence monsieur Macky Sall c'est le président des infrastructures moi je le nomme désormais le président des infrastructures et des équipements durables kon bu ñu ñëwee fii département bi ñi nga xam ne ñoo sport bi di demander infrastructure ñu relever le niveau c'est parce que dama avons ni yaakaar moo Et te si boobu buñ ko amee di ko jàllale ci man Macky Sall moom moo tax kon liñ ma damay utiliser vraiment cette voie de communication adressé directement à son excellence monsieur Macky Sall ci effort yi nga xamné ne jotoon ko def ci walu sport fi ci département de Dagana vraiment mu yokko ko laaj nak fi muy Ross Sénégal muy Richard Toll muy Dagana muy Ross Béthio vraiment dañu bëgg ay pelouse synthétique vraiment dëkk yi nga xamanteni ni amaguñu stade lu melni ki commune bu ronk yooyu tamit ñu renforcer leen ba ñu am ay équipement sportif yi nga xamante ni dina gën a jëmal sport ci localité te am nañu yaakaar ci moom bu baax a baax ñun à Ross Béthio déjà on est déjà un peu en avance sax ndax gis naa ni semaine semaine passée ñoo ngi woon ak waa AGETIP ñoo ngi woon ak waa ADEM naam ci ADEM ci wàllu assainissement la mais AGETIP ca la ko taxoon jog wàllu sport bokk na ci ndax bëgg nañ suñu deuxième stade vraiment ak première bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj a defoon nii vraiment mu dem ba nekk ay pelouse synthétique. ni yow Ross Béthio ngay département Dagana te xam naa ne si loolu ngay liggéey bu doon Ross Béthio kese la Sénégal parce que ñun fii au niveau de euh, Ross Sénégal am nañ fi maire mais yow dañ la soxla si département bi. Fally dañ la soxla département parce que xam nañu li bi li ngay liggéey du pour Ross Béthio du pour Ross Sénégal c'est pour tout le département de kooku dañuy lancer un appel à monsieur le président de la république mu xam ni Faly Seck moo fi nekk fii si département de Dagana lu nu mën a am nanu ko fi defal fii na ko fi bàyyil fii yokk ndombal tànk yi loolu lañ bëgg parce que ñun waalo daanaka amuñu dara kon donc tey bu jëlee Faly Seck def ko tey jox ko yenn yenn yenn yenn responsabilité yi kooku fi fierté la suñu tey amu ko dara mais yaa ngi def kon donc lu nu bëgg mooy ce qu'on souhaite le président mu defal nu ko mooy na yokk ndombal tànk yi loolu laa amoon li may wax.